ndaje mi li ko waral mooy dajale jigéen ñëpp ñu nekk benn pour mën a développer parce que dëkk bi dafa metti liggéey amul jigéen ñi sonn nañu te ñoom ñëpp ñoo taxaw yore kër yi léegi góor ñi ñoom léegi defatuñ dara dañuy nelaw jigéen ñi ñoo yore kër yi léegi nag moo tax ñu dajale leen ñoom ñëpp nekk benn dànk ñu bokk di liggéey pour mën a développer suñu dëkk loolu moo waral ndaje bi am ay kilifa yu am solo yu nga xamante ni dañoo nekk ci biir Thiès ñu jàppale woon Thiès bu njëkk ga te kenn mosulee na wax jërëjëf moo tax tey suñu xel nekk ci jàkkaarloog ñoom wax leen jërëjëf ci seen kaw taxawaay loolu moo waral ndaje mi ba pare jox xale seen i diplôme pour mën a ñaanaat yàlla amaat yeneen 3 3FPT mayaan ñu yeneen formation ci ndimbalu Dame Diop moom la directeur pour ñu mën a amaat ndaje bu mel ni déwén incha allah. formé nañu plus de 200 femmes ci différents euh, réseaux. module de formation par exemple former nañ leen ci leadership former nañ leen ci droits humains former nañ leen ci <clears throat> microfinance former nañ leen ci micro projet former nañ leen encore ci pâtisserie former nañ leen ci agriculture former nañ leen encore ci accès à la terre moo huit modules de formation la def pour le moment pour famille té dañu ñaan continuer pour égaler yenen ci dess tay dañu lance dañ ci bolé lancement mouvement réseau des femmes de développement man ak ñi ma àndal Diallo Maymouna madame Aydara ak yeneeni femmes groupement de femmes yu bari ñew région interne légui la am ñu nga xamé dañu sétane lance dañ ko sétane ci télé rek ñew joggé ba ay côté Tivaouane ñew fekk suñu fi pour bëgg bok ci réseau des femmes bi